Heavyweights.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 ndax li tubaab bi di wax usurpation de fonction moom la doon def wolof di ko wax mbubboo métiem jàmbur sa waay daal li mu doon mbubboo mooy ne moom ci boppam mooy préfet bu Gossas waaye kii ya dëgër fit te nag nee nañu lu tax mu doon def usurpation de fonction boobu mooy bëggoon di rëcc contrôle gendarme yi ak douane yi waaye nag li wolof di wax naan sàcc ndënd yomb na waaye foo ko tëggee jafe moo ko mujjee dal ndax sa waaye mujj nañ koo teg loxo waaye ma lu dul dëgg du wéy waaye ba placé ko garde à vue ca gendarmerie bu Goudiry arrestation bi nag nee ñu nii la demee commerçant bi ci otom bu am couleur bu weex lañu ko fekk di ko genn xogaliku jaay maana ne contrôleur yi wax xam ngeen ki ngeen di arrêté mooy kan ñu ne ko waa yow yaay kan mu ne leen man la préfet bu Gossas eskay naka noonu bi gendarme yi njottee kii day fenn ci noonu la ñu ko yóbboo brigade sëkkatal ko ba sa waay mu jee craqué avoué ne ca dëgg-dëgg nag moom ab commerçant la te ay téléphone lay jaay <laughs> ma ne ko nag mënoon nga koo ba fi mu ne nag te nañ ko ca parquet bu Tambacounda ci wàllum usurpation de fonction moo tax ma ne ji dal réew moo gën a graaw corona la wax ci conseil de ministre bi weesu nag Macky Sall ab néew la nommé ngir mu nekk sous bu arrondissement bu Banda Fassi sous-préfet boobu mu nommé nag diwuyoo ci turu Moussa Gadio nga xam ne du mës a jël boobu fonction ba mukk ndax nekkatu fi waa joojee daal ab instituteur la woon li doy waar nag ci communiqué réunion conseil des ministres bi dañu ne ndem si yàlla si Moussa Gadio moo nekkoon adjoint maire bu sous bu arrondissement bu Thiès Nord te nee nañu Moussa Gadio moo moomu te ñu nommé ko moom ci boppam moo nekkoon sous bu arrondissement bu Thiès si it waay cëy mi réew waa jooju nag di Moussa Gadio te génn àdduna la Macky Sall nommé ngir bëggoon mu wutu Mamadou mi dem retraite waay waay moo taxit dëgg la nee nañu le président c'est l'homme le plus informé moo taxit ma tekki ne le président tamit c'est l'homme le plus désinformé ndax ñi koy wër duñ ko wax dëgg ak ñi mu sant liggéey ñu war a liggéey te duñu liggéey te nag benn nit mënul def lépp moo tax ma ne jàng jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona a wax la xew ca yoof ramb na doy war ay violence yu metti jàppante am ci diggante taalibe Cheikh Mansour Diouf yi ak communauté bu lébu bi am ay blessé yu graaw ba ñu yóbbu leen ca l'hôpital Mangaleen bu yoof ay waay sang leen réew mi baax na rek ba kër Seydina Issa Laye di porte parole collectif Lebu yi ak nday ji réew Aline Bey ñu caxat-caxatee ko nee ñu xeexoo yooyu nag mu ngi am booru une heure matin ba cellule bu communication bu communauté Lebu def ci ab communiqué de presse fu mu toll nag élément gendarmerie bu foire dox nañu seen diggante ngir li xewoon bañ a xew <laughs> waaw góore waay jàppante yooyu nag nee ñu li ko indi di lenn lu coowal suuf cay coowal suuf moo taxit ma yokk ci ne yu mel nii nag lañu ñu war a ligganti kenn waru ko napp-nappal moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax gannaaw li xewoon ca fajal ab samba booy songu ab sage-femme bu yoo ci turu Sagna doon ko bëgg a violer ndaw si résister mu mujj ko jàmba blessé ko gannaaw bi loolu amee nag waa sit sas nañ door ci kaw taabal ji ngir kaaraange personnel médical gi <laughs> waaw waaw gannaaw ab assemblée générale bu Dame di secrétaire général bu section SUTSAS bu district sanitaire bu Mbour ne sous-section bu Joal décrété nañ ab sitting alxamis 24 bi ngir lu ni mel bañ amati <laughs> waaw waaw taxaw tem moo tax ma ne jangoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona la wax décharge bu mbabas nag li fa am doy na war fanweeri neewi liir ak ñaar lañu foree ci mbalit mi ay waay ay tànki nit ak ay boppi nit <laughs> waaw teyit am na benn bujumaan bu ñu interrogé cinquante quatre ans nee na ci mbalit moomu mës naa yem ci ab tànku nit ak bopp nit bu ñu takk ci ab darab plow ca décharge bu mbëbës ma ne nag mbëbës moom lu ne mën na faa am ndax comme am réew ay waay ay néew yu ñuy sànni ci mbalit bi xew ci réew mi ëpp na waaye nag loi bi may dégg ci réew mi it war nañ koo xoolaat ndax nit ñi moom kenn mënu leen a xañ seen liberté mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz